ci biir loolu nag laay profité di yëkkati ay kàddu yoo xam ne yëkkoon yëkkati woon naa ko ci mois de juin juillet août waxoon ni dafa am fu jëm lii may wax nag dama koy yëkkati jëme ko ci samay xarit ñi nga xam ni kóllëre boole na ma ak ñoom ñi nga xam ni njaboote naa leen ci diine fépp foo xam ni sama nit ma nga fa moo xam ci sama njaboot nga bokk wala may sa xarit wala may sa soppi wala mu am loo xam ni relation boo xam ni boole na ma ak yow maa ngi lay woo woo ci lii ñu jëm te ak guñ ci may ñaan képp koo xam ne sama soppi na sa carte d'identité nañ ko téye te déglu ñi ma koy waxal na mooy ñi nga xam ne dama am ak ñoom relation bi nga xam ne su ma waxee dañ ma déglu su leen ñaanee danañ ma may. mangi ñaan képp ko xam ci man nga bok rawat ni sama ñawatu bok rawat ni ñi nga xamni ci sama kër lañ bok ma am lu ma ak ñoom rawat ni sama xal ak fu mëna bok a ak yoon kër bu mëna bok tariixa bu mëna bok ba ci jàng bi ñi nga xamni sama ko kóllëre mangi ngi ñaan ñepp tan ku ci nekk nga dimbali ma denc sa karam d'identité téye ko deglu ma ba ma wax bu fekkee maanaam seq na ko ay yow ñi nga xamni wuruma leen jox ndigal wuruma sàkk ci ñoom dara ñooñu sàkkuwu ci ñoom dara kenn ko yaa moom sa kàttan fu la neex jëme ko fi ñi may wax daal mooy ñi nga xam ne ñoom laa ko seqal te war a wax ak ñoom te sañ a wax ak ñoom ñoom laa wax waaye keneen koo xam ne sañu maa wax yow waru maa wax yow sañu ma laa jox ndigal sañu ma laa ñaan sama yoon nekkul ci yow képp koo xam daal yaa ngi may déglu maa ngi lay jox ndigal na nga téye sa carte d'identité am na ñu bari ñu ma woo Sénégal dëkk ci région Thiès kenn ñu ca nekk rek na wax ne ma téye nañ nangami carte d'identité yoo xam ne yow rek lañ ba tey suba am nañu ma